ñu ne sant ko séentuwuma ci ku ma ci ŋàññi bëgg mooy ku ma ci wax dara ndax loolu amul soxla la ma ci amal soxla mooy ndigalu suñ Cheikh Mouhamadou Mountakha te ñi fi nekkal Sëriñ Tuubaa ku fi ma sa nekkal Sëriñ Tuubaa bu sa responsabilité ak see ci war a wax doo ci sédd lu naq lu naqari nit ndax nit ñi kenn mënta fexe ba ñu gërëm ridan naasi xaayatun laa tudd rek Cheikh Mouhamadou Moustapha bi Sëriñ Tuubaa ñibbisee Tuubaa 1900 27 28 élection yi jëkk am balees doon xëccoo Cheikh Moussa moo ko jàppale fésal ko ba ba mu gañe moo ko fal kon ñooñu ñooñu gën fuuf Cheikh Mamadou Fadil ba Senghor di xëccoo ak Lamine Gueye fii ci soow jumaa ji ba Senghor waxee lañuy wax ñëpp ngi toog ba mu waxee boo tudd jumaa ji suñu fàllu ñam kam kam sësal dana ko jël na ko de kon moo ko fal Cheikh Abdoul Ahad 1988 ba mu waxee la mu wax ci Abdou Diouf wax ji jaaxal ñépp daa wax Cheikh Modou Badara jóob ne ko sama wax jii de jaaxal na ñu bari ne ko xam ngeen wax ji lu ko andee ne ko bu li ma wax de bala ko nit ñoon xam ma ñëpp ñëpp maase ci bañ ko def daana ko sama kàddu gii de boo ko peese woon ak kàddu yu bindee fi ci balaas réngi ji ñëpp koy diggaloo dajale ak njabootam wax leen ne leen coow li di dafa bari lool boo élection yaa ngi sës xam daan leen xam nga loo indi coow ñu ne ko déedéet mu ne li ma ne Abdou Diouf dana toog ñooy du fi toog mu ne waaye buñ xamoon la ma xam ne kenn du ko nattable ndax xut bu samaan ak buur suñ borom dana ko fal ñeent fukk guddi wàcc ko ci asamaan su mujj si kon koo xam ne sax xam-xam ëggut foofa wala sax xam àgg ca danga xam lu nit ñi xamut danaa ci nett loo xam ne ñooñu ñu ngi dund sëriñ Abou Mbacke suñ mbuur bi xam mooy xelif suñ mbuur bi xam te jarbaaru suñu ak suñ xelif suñ fàllu dañoo ñëw ji siyaare si suñu Buxaari ba suñu bi daal waxee wax ja ñuy waxtaan seen waxtaan muur ci biir oto bi bañ accès te seen teg suñu Buxaari di ju génne ci kër di julli ji nañ leen ko laaj ba suñu Buxaari génnee mel na ku leen di tontu nee na waxe suñu Abdou ji ñu bari danañ ci wax ba yàqoo ci waaye buñ xamoon la tax ñu wax ko rek kenn du ko nattable kon ñoom foofu lañ nekk sëriñ Saliou Mbacké président Abdoulaye Wade ba mu koy fal ñëpp xam nañ ne da ko ñaar ba na ko jugal nga wuti réew mi ñaareel at ma gis ngeen dam ci jëfandikoo li ma li yéene Sëriñ ko ñaan kon moom daa waxoon ne nag sama kilifa yi dañu amoon digel wax man nak digel lu ñaan la am waye day jëfandiku mu lam bëgg mu am cheikh mu cheikh Sidi Mokhtar xam ngeen 2012 kàddu yam waxon àdduna sépp ko xam leeru na admi wessu cheikh Mouhamadou muntaha moko wax ci lami ñom ñepp deg te man ba ba koy wax mako ko deg ne ko demat ci borobu seigne touba boo demee lañ fa la la loo bëgg nga fas ko fa Sëriñ Tuubaa dana ko defal kon nag lu ma ci xam ci loo xam ne seere la ndax loo ci xam ne kat doon na lu jaaduwut ñu jëme ko ci taalibe wala ci dëkk bi bu boobaa sëriñ bi nam ko war a bañe ne la koy bañe kon loolu la ko ñëpp xam Cheikh Mouhamadou Mountakha weesu na foo xam ne dana wax lu neex nit lépp lu muy wax ngir yàlla jëm Sëriñ Tuubaa ak taalibe yi te moom bu dee ñun niti àdduna lañ dañoo manqué de matadi lu ne mën nañoo dal waaye moom mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa lépp lu xalaat weesu na lépp ndax li àdduna jariñ weesu na ko li nit àdduna mën a mën a li nit li ñu soxlaa nitu àdduna Cheikh Mountakha weesu na ko moo tax eh, ku baax ki ci mujj gi bi ñu ko waxee ne ko nga doxale sa digg tubaab bi ay nit sëñ bi dane leen sama digge ñoom de kenn doyuma ci ndax ku dul man rek mën nañ la xupp wala ñu xëpp la man nag mënu suma xupp mënu suma xëpp loolu nag def na def na ko ci ki ko fi nekkal waaye nag ci moom képp la yam nag moom mi fi nekkal Sëriñ kenn mënu koo xupp kenn mënu koo xëpp kon nag ñu ngi ñaan ñun ñëpp nag yàlla ñu tàbbal ci biiram yóbbaale ñu ci alfulkul masoon gi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa def te duggal ci taalib yëpp تتبل تبل نجي أدخلت النفسي وجبي وجميع أهلي في جيبي أفضل وراء بفضل